ay nervi ngeen xaw ma ay agresseur xaw ma ay sàcc laa la wax tribune yéene kaay ne koo dëkkoon ca askanu Fuuta gële ci tournée président Macky Sall ba waaw dama ne la plainte yi bari nañu lool lool waa Fuuta tampi day a marre ni ki démb la laa la wax waa gëm sa bopp waa direct news nee nañu ñooñee moom jot nañoo laa la wax ak ña ma àndal day daal dinañuy porter plainte rek Samba Surabali yi nga xam ne kon ñoo leen songoon ca diwaanu Fuuta gële Fatoumata Ndiaye Fuuta Tampi ci tribune yéene kaay waaw nee na dama ne ñun ay sénégalais lañ laa la wax dañuy fay impôt dañuy fay ay taxes laa la wax caatub réew mi ci constitution bi ci boppam moo ñu may sañ-sañu bu ñu gisee lu ñu naqari ñu daal di kon manifester bu ñu gisee tamit lu neex kasaalika waaye lañ leen bëggoon xamal daal mooy suñuy ak ak yelleef ci boppam ko nañu koo football tegee ko ne lay te la ma leen bëgg a xamal nag mooy fukki fan ak juróom yi ñu génne ni lé mais tuxu naa fi ay yoonu yoon damay tuxu rek ma leen di xamal ne ndoxu googee dootuma ko defati parce que kilifa yi lée danaa jëflante ak ñoom laa la wax yéene kaay déeme jaagi ne gis nga ca Ourossogui gee waaw njiital Fuuta Tampi googee di Fatoumata Ndiaye dañu ko fa agressé ci kanamu gendarme yi la wax te gendarme yi defuñu dara de ak élément bi bi alerte yéene ne plainte day mi ngi ci kaw bopp Moussa Bokar Thiam mar di Italie waaw parce que moom tamit dafa recruté woon ay nervi day ca Ourossogui gee la ilaha illallah c'est normal ah waaw ci boppam kon la ma yónnee day maar day taali waaw dama ne la waa Fuuta tampi ak waa yaanaamaar nee nañu ay nervi yu ñu toll ci Sénégal gi la ca Fuuta waaw dama ne la ñi ngi koy doog a gis njiital Fuuta tampi ne te gis nga lii nii day buñ ca jugul ah, lii raam ca ñag wala jëm te bu fa amee kër rek maar taali du fa gaaw a génn yow fan nga ma gisee ay nervi yoo xam ni kon dañuy sànni ay grenade lacrymogène la titre foncier la Macky Sall juum na permis d'occuper la yaamar waaw nee nañu toroxtaange ak coono li nga xam ne kon moom la nër bi di ah, ca la waa nguur gi di profito di leen fay ay ñetti junni ak ay ñaari junni ngir ñuy jàpp yeneen i sénégalais di leen dóor yaakaar ne loolu jàmm la professeur Abou Kane day ceefa yéene kaay nee na xaalis ba day moom jooru na fa de tuuru na fa de te xam nga lu ca neex ay sénégalais yoo xam ne ba ñu gëjee téyee kon junni wala ñaari junni yu ñu moomal seen bopp ne day mais da ko doon critiqué la témoin yéene kaa ne gis nga démocratie bi lé waaw nervi day mais góom lañ ca góom lañ ci démocratie te lii du fi du bees de ngi fàttali ko ay tonton Macoute Gallo Bleu tey Marron du Feu maa la ko wax ACT nee nervi yi lé dañ leen a war a gis xàmmee leen xool leen jébbal leen police Serigne Modou Kara Mbacké ci wàllum nervi yi lé Adji Sarr juin waaw la mu gis day mar day taali di lii di ram ni lé mar day taali di maître eh way samba eh way samba wal fajiri ne ministre de Antoine Diome mais moom anamu critique yéene kaa ne waaye 23 juin bi le kat moo ko jur xëccoogaa nga mel ni tulleeg ma waaw waaw parce que ne 2011 day askan wi ci boppam ñoom ñoo lëkkaloo jug taaw jàkkaarloog Abdoulaye Wade bi ak projet politique am nga xam ne werante la juróon waaw fukki atu yàlla lañ ca teg day homme yi nga xam ne dañ doon jàkkaarloo ak Renat ya yoo xam ne dañoo dayal Ousmane Sonko ngi a àndal day waaw dañoo bëgg a récupérer mouvement ba day ah, ah, waaw waaw maître El Hadji Diouf day ci Vox Populi waaw daal di ne dal ca kaw Ousmane Sonko de ne Ousmane Sonko ba kewul dara ak mouvement wu M23 ba da koo bëgg a récupérer Mohamed Diagne Macky 2012 waaw nee na Sonko na gëm yàlla te nangu ne ëllëgu politique am day wanteer na ko de tabal na ko géej waa parti démocratique sénégalais day libéraux yi ci tribune waaw wax nañu Macky Sall lu leer xamal nañ 4 xeex rek wala xeexulee tamit day mooy loolu de critique yéene kaay ne ma Macky Sall ba kon ca daara jolof day bu dee ay ministre ak ay DG mobilisé nañu waaw maaram Sall homme d'affaires waaw suul na ay ministre de ndaxte waaji day la mu mobilisé tax na sax ba ñu koy fiire <laughs> dama ne la am na ci ñaari militant Habib Dem ak Assane Ka dañ leen a mujj bi la seddi <laughs> ay militant maaram Sall lañ ca jamono la joo xam ni kon gaa ca politique ba day avion bi la Macky jënd waaw waa FMI nee nañu opération bi leer la transparent dëkk fa waaw wane nañu carrément ne loolee d'accord uñ ci tey te ci ëllëg laa wax parce que nag dafa nekkul ab cadeau boo xam ne dañu koy jël ko caxat-caxatee nii la dañoo mi joxee ci ay joxee ci ay ci ay hectares toll na ci juróom-ñetti junni laa la wax huit mille hectares ci mbirum aéroport jas fi évidence yéene tabax ay infrastructure ci bët saalum réew mi Ziguinchor lu ko waaw askan wa day d'accord benn yoon ci entreprise chinoise bi la CRSG dama ne la askanu la ñu àndal tey moom la luy ndeyu ñuy jël ay sañte di ko jébal ay chinois lii la askanu Casamance googe mer bu fut laa la wax 24 heures yéene kaa ne M23 M2D mandat de trop baa ngi nii dale nan lañ koy faje M2D waaw ndax dana mujj yéeg ci kaw M23 bu Abdourahmane Sow ak maître El Hadj Diouf ngir imposer nag seenu pikiir nguur gi box boobu ne waaye yaanaa maar day dañoo zappé li desoon kon ci M23 daw ci a 2 d Mamadou Diop day ci exclusive yéene kaay waaw nee na Macky Sall li lay yoo di nga bàyyi li lay yoo di yoote daw Macky Sall nga naan na daw <laughs> waaye Macky Sall day moom président ak lu mu daw daw daw daw daw daw daw daw du rëcc ci pétrole bi déedéet parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko bi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjël ngir jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bés cloche bi bokk ci programme bi national international